gis ko gis naa naa ko gis naa ko. xaalis billaahi yaayam rek moom am na hmm. xaalis bu ma laata Dakar dëgg la. Ah, ndax xam nga lan moo tax bi mu Adamo bi moment bi mu toll nii dafa dafa sonn. kon xaalis bi nekkul loo war na xaar xaalis bi dañ ko war a dajale. ñu mën a nekk si projet femme bi. ndax femme bi bi mu toll nii feebar bi metti na te sonn na. kon nan ko yàlla may gaa yi dajale xaalis bi wàññi wax ji. wàññi xam nga jàppal fii bàyyil fii déedéet instant femme bi soxlawul loolu nañ ko dimbali taxawu ko jël xaalis bi somu xaalis bi jox ko yaayam ñu mën a jàppale femme bi femme bi nekkaat. seen bopp ñoom soo yóbbu doon seen bopp kii waaye dañ joxe xaalis bi daal loolay wax ji jërëjëf Demba. waaw jaajëf. kontaan naa jërëjëf. waaw bébé Eva Eva ñu ngi lay déglu. ça yaa ngi si jàmm. maa ñu ngi lay déglu. di ñaanal euh, yaadoo bi nga xamante ni moo tëdd feebar yal na ko suñu borom fëggal boppam ba mu dellu si si njabootam dellu si ay activité man moom li may wax du bari bébé Eva moom xam naa ni moom nit ku ñàkk keesal xanaa moom tey la mën a dem ca yaadoo di ko filmer naan dafa feebar nañ ne ko parce que dafa xuloon ñànk looloo tax xam naa ci dara bébé Eva ci lañ ma booleeg moom jox ma numéro ma woo ko téléphone fii dama am problème location ma woo ko téléphone ma war maa yóbbu ci évasion discussion ak man ngay sax mu may ñàkkee kees sax. dëgg la. yaa ngi dégg. àdduna nag du kër gis nga nit koo mën a jàppale war koo mën a jàppale rek te yàlla tax ndax King Saliou King Saliou mii joxe dem joxe deux millions tey ji mu ko neexoon mu tëdd ci xaalisam kenn ñeneen ñi ci jot jot a participer yëpp bu leen neexoon ñu tëdd ci seen xaalis mais defuñu ko donc bu nit ñi amee ngoru jox ko xaalis na am ngoru dem ba ci kër yaayu yaadoo mu jël xaalis bi teg ko ci yaayu yaadoo laay ji moo tax defee ko kër kër googu nga xam ne luñ ko versé fa koy teg fa la koy bàyyi mu bañ koo topp boole ko di ko yóbbu ci ay banque am fit xaalis bi naru ci jàmm. yaayam nee na 150 000 la fa joxe fanweeri junni. vidéo baa ngi nii ma ko. nee ñëw dafa joxe fa fanweeri junni. ma ne la naru ci jàmm loolu tax mu yóbbu ko banque. xaaral ma tegaat ko ngeen dégg. dangaa taw naru waaw ma war a yóbbu ci Eva Sédhiou. ba pare engagé déglu ma Eva engagé dafa wax Ndaya ne ko. Hmm. dafa wax Ndayaat Ndayaat ne ko. man ñi ki ma ko wax dafa leer ci ñoom la sës. daf ne ko awo ba dina am problème mu ne ko ban problème mu ne ko dafa déclaré xaalis boo xam ne nekkul foofu. nii la ko waxee. te xaalis baa nga fa ne man dafaa nekk sax mais mën koo sàcc. déglul li yaay ji wax déglul yaay ji mooy wax déglul. te awa ba bu ma ñëwee fii woo naa fa den ma ne ko ah mbokkam artiste am de def na soxna allo soxna si waaw maa ngi lay dégg waaw. yaa ngi may dégg dégg ko nee na weeri junni. loolu te dégg dégg dégg sànq bi ñu ko njëkkee sax dégg naa ko loolu. waaw fanweeri junni fanweeri junni yow dafay dégg ko nga yor huit millions ci say loxo. nga banque dafa xaalis bi moo wutul banque dara. lu muy wut banque su boobaa moom dem jëli xaalis bi taal caméra yi versé yi millions tam dem toogi moom na dem toogi xooli leneen lu def na dem toogi xooli yow nag Adamo bëgg naa nga jàppale ma sama location bi ma am problème. te li mu la soxla yow après dana déglu dana déggoo ci suuf. waaw baax na maa ngi lay xaar. jërëjëf. bu malaat bi wéree rek ñu jublu ci localisation bi wér gu yaram a ëpp ay tabaxi kër foofu kër ki foofu saalixaat aadamoo naka mu yaa ngi si jàmm Adamo sa video bi day pose rek sànq ba tey mais Adamo yaa ngi nga wax dëgg nag ba sëriñ Tuubaa yaa ngi wax lu dul dëgg man Sénégal waaw Adamo xam lan moo ma jaaxal waaw xaalis boobu ñu dugal si banque bi pour lan la kay dafa feebar yóbbu ko si yaayam xaalis boobu mën na premier soin comme que huit millions la mën si def premier soin yi Adamo dëgg la de boobu amul amul benn sens pour dugg si ay banque nañu waxante dëgg na. man damay ragal ñu def ci seen sooyee bopp. ah amul benn sens na jël xaalis bi yóbbu ko si yaayu yaadoo. waaw nga daal koy faj. nañu waxante dëgg. waaw man de Adamo yaay yaay de social ba ci Serigne Touba yaa ñame dëgg nag. man de xoolal ñi ma woo ñëpp ay milliardaire lan te ku ma ci woo ba ci King Saliou dama ne ko jekkool ak ñoom oh. directement ko yóbbu ko mbiru xaalis moo doy waar ci ku feebar. dëgg la dëgg la. waaw ni ma mel ci réew Adama nekk na xaali ku ku feebar yàlla tere dafay dimbali feebar loolu kenn du ko yaay Sénégal loolu kenn sa day ci suuf sa doom yu bëri yooyu nga mel ne ko yor équipe nationale fii keneen ki jooy fee continuel saali daal na de na jël xaalis bi delloo ko si yaay yaadoo loolooy dëgg. looy dëgg de. lii amul benn sens. looy dëgg de. waaw nuyul ma madame Dieng. waaw dina ko dégg jërëjëf ci salu Tamboré. madame Dieng ngi dégg ca casque yi la daa di moom en gënu ko dof amore ti saluto qualcuno ti ha salutato ciao eh. eh qualcuno ti ha salutato sì eh. ci suuf yow nday jéeme sa connexion bu yàgg bi xanaa yow ñaari daqaar nga ne koko mama bisimilah ñu ngi lay déglu waaw salaamaaleykum Adamo na ngi lay déglu naka dëkk bi macha allah alhamdulilah maa ngi lay woowee depuis Mauritanie jërëjëf Mauritanie ci naar yi samay xarit la de <laughs> ana sa ana sanu goro bi mbaa mi ngi ci jàmm. waaw mi ci jàmm waaw. alhamdulilah man de yaadoo xamuma ko ci télé rek laa ko xamee mais maa ngi koy ñaanal yàlla ci barke Seydina Mohamed yal na yàlla fëgg boppam. jërëjëf. yal na ko yàlla delloo wéram. ci barke Salaatul Faatiha. xaalis boobu noonu. ko jël jox ko ndeyam mu faj doomam.